gaay di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay allemand man dama teg réewum tubaab yépp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran Irak teere Tanzanie xam naa fi may commencé information yi rek mooy que ni euh, principal événement si àdduna bi euh, le 21 février bi mooy information yi jot a génn mooy euh, président Afrique du Sud bi moom dafa xamle ni euh, président Afrique du Sud euh, élection yi élection présidentielle yu Afrique Sud yi ko am euh, amal le 29 mai 2024. Mme la président bi de Cyril Ramaphosa moom la déclaré waaw beneen bis topp mooy que ni serge Lavrov moom dafa déclaré moom nous arrivé na Rio de Janeiro. maanaam agsi na fa pour pour euh, participer si réunion bien nga xamante ni ministère yor wàllu affaires étrangères yu g ñoom ñoo ko organiser maanaam daal euh, euh, ñaar fukki réew yi nga xamante ni ñoo ëpp doole si àdduna bi ñoom dañ war a def benn dañ war a def ndaje boo xamante ne nii daal war nañ si waxtaan daal ñoom seen biir mais G20 boobu Brésil lay am la amee ren jii neneen département bu États-Unis euh, neneen département bu États-Unis ñoom nee ñoom euh, dunu nangu maanaam di participer si guerre boo xamante maanaam daal euh, di attaquer maanaam di participer maanaam dunu nangu département bu États-Unis nee ñoom dunu nangu armée bu États-Unis di di participer si benn opération boo xamante ni maanaam dañuy guerre rek waa Russie quoi comme ndaxte waa fan yële passé Zelensky doon na déclaré lu mel noonu. ba tey bokk na ci information yi neenu marine bu britannique yi ñoom doon defaroon benn missile boo xamante ni ñoo ngi koy ñoo ngi ko tuddi ñoo ngi koy tuddee Trident LD5 ñoom dañ doon def benn benn essai missile boobu dañ ko doon essai mais neenu missile bi dafa échec. ba léegi daal dafa liñ ci bëgg daal amaguñu ko si missile missile boobu missile boobu quoi missile boobu nga xamante ni marine bi ñoom ñoo ko utiliser. ba léegi bokk na si information yi ne Maison Blanche moom dafa ne ne waaw moom euh, ki nga xamante ni moo yor wàllu sécurité nationale bu États-Unis ñu naan ko Jacques Sullivan moom dafa ni États-Unis actuellement nii amul benn xaalis boo xamante ni jox na ko euh, waa Ukraine amul benn xaalis boo xamante ni jox na leen ko daal. ba tey bokk na si euh, information journaliste bi bu États-Unis bii di ka bu Tucker Carlson moom dafa traité idiot ñi nga xamante ni dañu yaakaar ni euh, Russie deewu Alexei Navalny bi euh, Russie daf si impliqué maanaam li Russie daf si laale neen maam ñoom da leen traité idiot moom leen traité moom aussi tamit nee na moom leeral na fa leneen ni depuis que nous avons un depuis entretien avec Vladimir Poutine l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a tenté euh, plusieurs fois pour euh, pour interview mais il daf ko ko bañal que plus de 1 million million de dollars à or. moom Tucker Carlson loolu la déclaré nee loolu yëpp li ko waral mooy que ni eh, entretien bi nga xamante ni defoon na ko ak eh, ak Poutine looloo tax Boris Johnson moom bëggoon def benn entretien ak moom mais mais mais Tucker Carlson neen dafa làng ba tey bokk na si information yi neenu seen arme armée Ukraine ñoom eh, neen actuellement ni ñoom ay euh, soldats yu bëri ñàkk nañ ko si biir Afdifka bi aussi tamit am na ay soldats yu bëri yoo xamante ne ni si euh, maanaam miir yi ñoo daanu seen kaw ñii jàpp leen mais ministère wu Ukraine bi moom génn na weddi lu mel noonu ni loolu amul ni wax ni li New York Times wax euh, nekk na loo xamante ni lu amul daal. mom la mom la New York Times mom la don mom la don xam fi ni centaine de militaires ukrainiens ñom toujours ñoo ci ci manam ay mur yo xamanteni ni daan sen ko ci bir manam wa waa Russie bi ni def nettoyage bi ci lañu ci lañu gis yu mel non daal ci lañ leen gis mais comme ni ma ko waxe léegi rek ñi ñi jité armée Ukraine bi ñom génn nañu wéddu lu mel non ta ku nekk xamna ni loolu am la ndaxte euh, am na ay vidéo yoo xamante ni da gis am na euh, ndeysaan am na militaire yoo xamante ni buñ leen jàppee dañuy kontaan dañuy kontaan euh, di jàppale di jàppale soldaaru Russie yaa xamante ni ni dañu blessé ñu ñu jàppale waa Russie quoi pour ñu leen di di yóbbu pour faj leen ak yooyu te ñoom ay détourné ay détourné lañu macha allah ñoo ngi suri di ree ree comme si que daa yow doo prisonnier quoi. ba tey na si information yi nañu centre maanaam Ukraine dafa dafa ubbi benn centre boo xamante ni da installé biir euh, Zaporijia maanaam maanaam côté bi nga xamante ñoom ñoo ko contrôlé nee na dañ fa def benn dañ fa ubbi benn dañ installé benn service sécurité boo xamante ni waa SB ñoom ñoo leen jiite si ville bi si ville Zaporijia Zaporijia bi nga xamante ni côté nga xamante waa Ukraine yi ñoom ñoo ko. ñoom ñoo ko ubbi maanaam daal centre boobu dañ ko ubbi rek rien pour di leen di di leen torturer daal di torturer ñi nga xamante ni ñoo àndul ak ñoom ñi déclaré loolu nag mooy que ni mouvement local bi nekk biir euh, euh, bi nekk biir euh, Japruza ñoo déclaré lu mel noonu mais mouvement bi nag mi ngi tudd nu somme avec la Russie maanaam ñoom daal Russie la ñu ànd daal ñoom waa kii boobu mouvement boobu. ba tey bokk na si information yi moom Sohaybo xam nga moom comme ni ma ko waxee woon sànq rek euh, demoon na si euh, sommet G20 bi waroon am léegi moom dafa am benn journalu brésilien bu ko dalaloon ñu naan ko Globo moom si li mu déclaré foofu bokk na si neen ñoom waa g ñoom dañu war a bàyyi di utiliser économie àdduna bi euh, comme arme. comme arme comme arme neen moom loolu ñoom waa G20 war war nañ ko bàyyi waaw ndaxte ku nekk xam na ni ku nekk xam na ni waa G20 booy koy wax maanaam États-Unis moo nekk si bo maanaam bokk na si te comme li ma ko doon leeral fa rek sama benn vocal mais dafa leerul dafa leeru woon te bàyyi ma si xel. mooy que ni États-Unis moom ku nekk xam ne dollar bi mooy borom te képp ki nga xamante ni da jaay si ay pétrole ak or yooyu en général si dollar bi nga koy jaay te dollar boo si jaayee da si États-Unis da si am intérêt par force da si am intérêt par force waaw mooy comme li africain di wax ni France moom lay def franc CFA bi rek États-Unis noonu lay def lay def euh, pays yu mag yi nekk biir Europe ak. waa Russie waa Russie sax fa ni biñ leen dóoree sanction leen arrêté lool ni léegi jaayatuñu euh, pétrole si dollar mais dañ ko jaay si rouble ndaxte ñoom xam na ni bu fekkee ni jaayuñu leen jaayuñu ko si euh, rouble bu boobaa buñ ko jaay si dollar kon États-Unis daf koy daf koy téye loolu euh, looloo tax Russie jël stratégie boobu looloo tax Russie jël stratégie boobu ndaxte képp koo xamante ni si àdduna bi nga nekk rek li ngay jaay mu jaar si muy muy jaar dool si dollar euh, balaa muy dem fenn dina jaar États-Unis ñu xool kii kan moo ko war a moom kii kii ko moom war na ko moom wala waru ko moom est-ce que war nañ ko ko jox wala waruñu ko jox looloo tax booy xool booy xool muy euh, waa Russie ak surtout Iran euh, États-Unis mi ngi téye xaalisam bu bëree bëri bëri de sax Iran jamono ji nga xamante ni tollu woon nañ si. toll woon nañ si Covid bi bi ñu ñu sonn trop ñu sonn trop euh, euh, bare na ñu doon wax euh, surtout waa kii comment dirais waa waa maanaam organisation bi yor wàllu santé bare na ay organisation daal yu doon wax pour ni États-Unis na dindi sanction bi nga xamante mi ngi ko teg si kaw kaw Iran. aussi tamit euh, euh, xaalis bi nga xamante ni xaalis Iran bi nga xam moom la téye mu jox leen jox ko ko pour pour ñu kii daal pour ñu mën a euh, kii si si Covid bi ndaxte Iran bokkoon na si dëkk yaa xamante ni ñoom la Covid bi gën a sonal ñoom waa Iran bokkoon na bokk na bokkoon bokk na si dëkk yaa xamante ni ñoom la gën a sonal waaw ba tax na nag booy xool àdduna bi loolu moo fi dox ku si mel loolu moo fi dox looloo tax. booy xool ay Russie yi yëpp ñoom euh, di former yeneen organisation ndax bu leen sanctionné fii ñoom ñu mën a doxal feneen booy xool looloo tax ndaxte ku nekk xam na ne économie mondiale bi États-Unis ak Occidentaux yi ñoom ñoo ko yore woon waaye léegi nii euh, changement mi nga am bu baax a baax a baax a baax. aussi tamit bokk na ba léegi bokk na si li mu déclaré moom si woygu nee nee na États-Unis dafa jàppe Russie comme benn menace boo xamante ni benn benn euh, maanaam dafa considérer Russie comme benn adversaire am benn adversaire boo xamante nii daal menace la pour adduna bi quoi mu nee na nee na loolu la États-Unis jàppe Russie te pourtant que nekkul loolu aussi tamit euh, soo bokk na si li wax mooy que nu nee na nee na waa Occidentaux yi ak euh, waa Ukraine ñoom euh, conflit bi bëgguñu ko woon régler ci côté politique neen loolu moo tax neen bëgguñu ko woon régler ci côté politique neen looloo tax amuñu woon benn choix bu dul def opération spéciale bi nu nekk nii moom la choix gu wax ndaxte ñoom occidentaux yi dañ leen naxoon Euh, mooy accord bi ngay dégg ñu naan accord de Minsk ñoom dañ dañu joxe woon accord ni waaw léegi Ukraine dana neutre affaire yooyu lépp li nga xamante ni daal Russie bëggoon na ko daal ñu ni ko gongo mais nekk te ñoom ñoo ngi préparé waa ñoo ngi préparé Russie di préparé soldaaru ukrainien yi ba ñu taxaw ba nu biir dee ba taxaw nag si la ni accord boo xam boobu nga xamante ni amoon nañ ko de ñoom waa Ukraine. topp nu ko quoi topp nu ko te loolu yëpp occidentaux yi ñoom ñoo ko def jamono yooyu euh, Angela Merkel bu Allemagne bokkoon na si ñi ñi fekke woon euh, procédure de euh, accord boobu noonu ak yeneen président européen yi waaw ah, daal loolu yëpp dañ ko doon naxe dañ ko pour mën préparer Ukraine militairement mais nag ku nekk xam na ni euh, fi mu ne nii ñoom li nu yaakaaroon ni Ukraine pare na parewul aussi si lañ defaroon seen i bunker rek seen système de défense yeeg yëpp jox ko arme daal bu mu doy mais ku nekk xam ne fi mu toll nii xeeñu neex aussi tamit euh, moom sooy bokk na si li mu wax mooy que ni euh, instant bi diggante Union européen ak waa Russie nekkul diggante bu neex nekkul diggante bu neex te pourtant diggante ñoom ñaar euh, seen diggante dafa war a neex ndaxte ku nekk xam ne Union européenne bare na dëkk yoo xamante ni Russie moo leen daan jaay gaz di leen jaay pétrole di leen jaay gaz naturel depuis que guerre bi am nag bi nu comme ba nu commencé di leen sanctionné yooyu bare na euh, industrie yu bëri dañoo tëj bare na entreprise yu bëri aussi tamit doon tëj ndaxte ñoom. Euh, waaris yi rek la ñu xamoon doon liggéey ak ñoom aussi tamit euh, moom sooy bu neen Russie ubbi ubbeeku na quoi pour euh, bépp waxtaan boo xamante ni daal pare na ñoom pare nañ pour waxtaan quoi pour conflit bi jeex moom sooy bu loolu loolu tamit bokk na si li mu leeral. aussi tamit moom sooy bu bokk na si li mu wax nee na Moscou xaarul maanaam jàppewul euh, Washington maanaam comme euh, anti maanaam ñoom jàpp anti anti wala anti Washington maanaam daal maanaam daal États-Unis ñoom euh, neen États-Unis waaw neen ñoom ñoom waa Russie ñoom jàppewuñu maanaam comme si na ay anti Washington ñoom daal gëm nañ ni bis dina ñëw États-Unis ak waa Russie dina nekk diggante bu neexaat moom Soygu lolou la déclaré te nee na loolu bu amee waa ñen ci contane euh maanaam di liggéey euh président américain aussi tamit euh, nee nañu peuple États-Unis aussi tamit ñoom dinañ am confiance bu baax baax. ba tay bokk na ci information ginaaw bi wa Russie ba militaire Russie libéré Avdiivka Euh, ñoom militaire yooyu dañ leen doon décorer ki leen doon décorer mooy que ni euh, dañ leen doon euh, remis le signe de distinction moom lañ leen doon jox maanaam daal zaaru médaille daal lañ leen doon takkal ginnaaw bi nu amee ndam si Afdifka bi ki doon ki leen doon décorer nag mooy chef d'état-major bu général di force bu force armée bu Russie ñu naan ko général Valery Gerasimov moom moo leen doon décorer si euh, zone opération militaire bi euh, maanaam fi affaire bi amee fala de fala leen fekk di leen décorer moom euh, moom Gerasimov ñoom nag ak fan ñoom nag Gerasimov mi daf mel ne déggoon naa waa Ukraine yi doon xamle ni rey nañ kaag dee naag deewu waaw mais nag depuis bo su ma juumul yaakaar naa Gerasimov bii leen doon wax suma ma juumul mën naa juum nag. chef de ñoom dañoo chef d'état bu maanaam daal dañu woon daal rey nañ ko quoi mais depuis bi ginnaaw bi gars yi amee ginnaaw bi gars yi amee bi ndam daal gis nañ ko muy décoré muy décoré armée armée armée bi nga xamante ni ñoo libéré Avdiivka bi. ba tey bokk na si information neenu pilote kii maanaam kii nii euh, pilote Russie la woon hélicoptère M8. mom la doon mi huit la doon euh, dawal mais mom dafa trahir wa rishi euh, hélicoptère bi nga xamanteni mom la mom la yoré won daf ko jëlee Kherson yobou ko donex. légui nak si nonu, euh, manam bi mu wàccee rek dafa man daf ko wàccee rek daw bi mu dawee noonu équipage yi nga xamanteni ñom ñom la ñom la fu wa Ukraine fekk dañ ko dañ leen ray ci saasi neenu nag moom dafa jaayoon eh, maanaam eh, waa Ukraine ñoo ko digoon sécurité mag maanaam aussi tamit ni boo ko boo indee hélicoptère dinañ la jox xaalis bu bëri affaire yooyu ba mu paree noonu maanaam dikk ay xaalis ak yëpp bi mu demee si waa Ukraine def na benn eh, interview ni daal dafa contre xeex bi ndaxte. ray ñaaw yi muy gis dafa war a war a dafa war a arrêté nangam sangam xam nga te ku nekk xam na ni lu euh, luwaawu euh, armée boo nekkee armée nga daw li la si fekk moom ku nekk xam na ko léegi moom mi euh, dafa da bi mu dawee dafa demoon dafa dafa làqatu woon ba dernier moment si la si la woo coroom si la woo coroom ni maanaam pour ñu tase. biir euh, Espagne biir Espagne daal fi leen waxoon ni maanaam fa la ñu tase par la suite fa la euh, bi fa corom de demee si lan ko fekk foofu éliminé ko moom euh, moom waa ji ngeen di gis nii moom nag ñu tudd Maxime Maxime Goz Gozminov Maxime Gozminov la tudd waaw te booy xool. waa euh, waa FH FSB waa SB waa SFB ñoom ñoo ko njëkk mooy ñoom ñoo ko njëkk a yëgle waa SSB mooy ñi nga xamante ni service secret bu Russie ñoom ñoo njëkk a le lu mel noonu ni seen pilote bi nga xamante ni daf leen trahiroon rey nañ ko aussi tamit euh, jot nañ interview euh, militaire yi nga xamante ni ñoo nekk si biir armée bi. ñoom dañ ni euh, Maxime Maxime neen Maxime moom traitre la jaam la te ku nekk xam na ni jaam dañ ko war a rey moom nag neenu fi ñu ko maanaam fi bin fekkee mu dee fekk na ñu tiire ko cinq bal cinq bal lañ ko dóor mu dee ku nekk xam na ne service renseignement yu Russie moom ku nekk xam na dafa am doole ñoom Sinwaa yeeg États-Unis ñoom bokk nañ si chef de renseignement yi gën a am doole si àdduna bi moo tax daal lii lii day tegtal nii day tegtale nii rek dana bare militaire yaa xamante ni bu naroon wor sax dinañ mujj bàyyi. ba tey bokk na si information yi waaw mooy baykat yu euh, européens yi cette fois yi waa république tchèque ñoom ñoo jël seen wàll te ñoom dañu fësal que ni waa Russie la ñu àndal man na man man na nga xam naa xam nu mu demee mais euh, Russie dafa mel ne am na lu muy am na rôle bu rëy bu muy jouer si baykat yi ndaxte actuellement nii euh, baykat yi danu bëgg Russie gagné benn yoon guerre bi maa dafa bëgg dañu bëgg Russie gagné guerre bi benn yoon quoi. moo tax ñuy boole ko céréales yu yu yu yi dugg biir euh, Europe bu de béyee ndaxte bu de ay baykatu bu dee baykatu waa Tchèque yi ñoom loolu wax mais premier ministre bi moom li wax mooy que ni ñooñu ñooñu doon def loolu ay partisan wu waa Russie lañu waaw te aussi euh, ñoom gaa ñoom ñoom kii ko sax euh, bañ ñoom làqtu wuñu làqtu wuñu mais daal. baykat yi léegi bare na bare na li ñuy contexte naan céréales yeeg yooyu ndaxte am na dëkk yoo xamante ñoom li ñuy bañ mooy wane seen jàppale bu fees si Vladimir Poutine wala waa Russie ñoom li ñuy ñooñu li ñuy wax mooy que ni dañu bëgg ñu changé seen euh, seen seen façon bi nuy dundee daal ndaxte dañuy bay duñ si am dara ak yooyu mais nag baykat yi waa Tchèque yi ñoom dañu leeral dañu gën a fësal affaire bi. aussi tamit démb waa Pologne yi ñoom waa Pologne yi ñoom euh, loolu lu mel noonu loon def baare baare waat euh, camion yaa xamante ñoo yab céréales yi ak train yi yab céréales yi ñoom bañ ko ba dañ ko arrêté ba pare tour céréales yi si si suuf di manifester wan ni daal wane ni daal céréales yu Ukraine yi na arrêté bu mu dugguti seen réew ñoom baykat yi waaw ñoom daal xaw comme ni ma ko waxee rek xaw ma ban si ban jeu lay jeu seen liggéey mais mi ngi si jeu rôle bu rëy ba tax ñoom baykat yi actuellement ni ñu jóg di manifester partout dans le monde surtout Europe surtout Europe ndaxte bu ngeen fàttalikoo Allemagne Allemagne ak waa Espagne ak euh, waa France ak Pologne ay Tchèque ak dëkk yeneen dëkk. surtout Allemagne Allemagne moom baykat yi am na ñoo xamante ni ay masque euh, masque Poutine lañuy sol dugg seen biir oto wane ni ñoom daal waa Russie la àndal ni ndaxte comme ni ma ko waxee rek baykat yi moom ñàkkul ne am na rôle bu mag bu waa Russie di jouer si ñoom ba tax na ba ger bi amee léegi ñu dóor leen sanction yeeg yooyu léegi euh, gisatuñu seen bopp si mbay mi ba tax ñu génn ñoom di manifester wu am na lu si nekk daal am na lu si nekk. xam na lu si nekk Russie daal am na rôle bu rëy bu muy joué si baykatu européen yi ba tey bokk na si information yi waaw mooy baykat yu européen yi cette fois-ci waa république tchèque ñoom ñoo jël seen wàll te ñoom dañu fësal que ni waa Russie la ñu àndal man na man man na nga xam naa xam nu mu demee mais Russie dafa mel ne am na lu muy am na rôle bu rëy bu muy joué si baykat yi ndaxte actuellement nii euh, baykat yi dañu bëgg Russie gagné benn yoon guerre bi maa dafa bëgg danu bëgg russi gagné guerre bi benn yoon quoi moo tax ñuy bloqué céréales yu yu yu yi dugg biir euh, Europe bu dee bayee ndaxte bu dee ay baykatu bu dee baykatu waa Tchèque ñoom la doon wax mais premier ministre moom li wax mooy que nii ñooñu ñooñu doon def loolu ay partisans wu waa Russie lañu waaw ah, te aussi euh, ñoom gaa ñoom ñoom kii ko sax euh, bañu ñoom làqatu wunu làqatu wunu quoi mais daal baykat yi léegi bare na bare na li ñuy contexte naan céréales yooyu ndaxte am na dëkk yoo xamante ñoom li ñuy bañ mooy wane seen jàppale bu fees si Vladimir Poutine wala waa Russie ñoom li ñuy ñooñu li ñuy wax mooy que ni dañu bëgg ñu changé seen. Euh, sen sen façon bi ñuy dundee daal ndaxte dañuy bay duñ ci am dara ak yoy manam bay baykat du wa ceg yi ñom dañu léral lé dañu gëna fessel affaire bi aussi timit demba wa Pologne ñi ñom wa Pologne eh, ñi ñom lool lu mel non lañ def baré baré wat camion eh, ya xamanteni ñoy yab céréales ak train yi yab céréales yi ñoom bañ ko ba dañ ko arrêté ba paré tour céréales yi ci si suuf di manifester wan ni daal wane ni daal céréalu Ukraine yi na arrêté bu mu dugguti seen réew ñoom baykat yi waaw xama nag ñoom daal xaw comme ni ma ko waxee rek xawma ban Russie ban jeu lay jeu seen seen liggéey mais mi ngi jeu rôle bu rëy ba tax ñoom baykat yi actuellement ni ñu jóg di manifester partout dans le monde surtout Europe surtout Europe ndaxte bu ngeen fàttalikoo Allemagne Allemagne ak waa Espagne ak euh, waa France ak poloñ ay Tchèque ak dëkk yeneen dëkk surtout Allemagne Allemagne moom baykat yi am na ñoo xamante ni ay masque euh, masque Poutine la sol dugg seen biir oto wane ni ñoom daal waa Russie la àndal ni ndaxte comme ni ma ko waxee rek baykat yi moom ñàkkul ne am na rôle bu mag bu. waa Russie di si ñoom ba tax na ba guerre bi amee léegi ñu dóor leen sanction yeeg yooyu léegi euh, gisatuñu seen bopp si mbay mi ba tax ñu génn ñoom di manifester wu am na lu si nekk daal am na lu si nekk am na lu si nekk Russie daal euh, am na rôle bu rëy bu muy jouer si baykatu européen yi. ba tey bokk na si information waa sama actualité mooy que ni euh, neenu état yi. Italie euh, moom moom mooy quatrième pays boo xamante ni dina signé ak waa Ukraine accord de sécurité neenu document yi presque pare na li si des lu lu ndaw la quoi pour ñu finaliser ko waaye neen daal euh, finalisation yi daal lu ndaw moom moo si des ay détails ndaw moo si des waaw ba tax na daal euh, ginaaw bi nga xamante ni Grande-Bretagne ak France ak Allemagne ñoom Euh, signé nañu ak Ukraine accord sécurité nee état la nag moom mooy beneen gouvernement boo xamante ni pare na pour signé waa Ukraine lu mel noonu. accord de sécurité nag mooy que ni boo nekkee si ay jafe-jafe yu métti si côté militaire euh, ñu jàppale la. ñu ñu ñu jàppale loolu mooy accord de sécurité maanaam daal duñ la la seetaan daal waaw mais nag xam nga gars yi ñoom li ñu def nii cinéma la wala. mais daal euh, Giorgia Meloni moom mi ngi commencé di xuus si euh, guerre yi ku si mel euh, ndaxte moom dafa neutroon si côté kiiw Ukraine bi def si neutroon mais léegi gis nga mi commencé di wane boppam bu dee côté Israël beeg Hamas aussi tamit daf si neutroon léegi mi ngi commencé ne commencé yónni woon na ay ndaxte moom dafa bokk Union européenne te bokk Union européenne te Union européenne jël ay gaal. yóbbu ay jël ay avion yóbbu leen si mer rouge bi pour ñuy intercepter pour ñuy aar bato ya fa jaar il fallait que ñoom waa itali bokk si de sax comme ni ma ko waxee waxee woon fan yële ki jiite woon euh, ki jiite woon outils yi moom waxoon na ni Italie ñoom li ñu bëgg si Italie mooy que ni mu neutre mel ni meloon mais bu fekkee dugg na si guerre bi rek dana nekk seen dana bokk seen cible yi. waaw ah, état la nag actuellement nii nii comme ni ma ko waxee si signé ak accord de sécurité ak euh, wa Ukraine euh, fa la jëm. ba tey bokk na si information yi moom Elon Musk génnaat na moom moom ndeysaan bu na bu sañoon euh, guerre jeex xam nga société mi def leen laal wala daal wala société mi ñoo menacé wu. moom Elon Musk dafa génn ni ni Ukraine chaque jour mi ngi gën a faible chaque jour mi ngi gën a faible. bokk na si li mu wax neen bu fekkoon ni maanaam Ukraine signé na accord de paix daaw kon tey actuellement maanaam kon tey ñi si dee nii duñ si dee bu fekkoon ni Ukraine loolu la déclaré ni bu fekkoon ni Ukraine signé na accord de paix daaw kon nii ñii dee ñii dee nii euh, kon euh, maanaam duñ si dee duñ si dee te neenu ñoom signé woon nañ accord de paix ndaxte loolu sax waa Turquie ñoom ñoo doxoon lu mel noonu mais par la suite. Euh, Boris Johnson moom moo dox si diggante bi ba waa Ukraine génnaat si accord de paix boobu waaw euh, ndaxte si interview bi rek interview bi nga xamante ni Carlson mi ngi ko doon defar ak Vladimir Poutine Poutine mi ngi ko doon wax ni ni accord de paix boobu nga xamante ne ni amoon na ba Boris Johnson opposé wu si moom daal war na xam li tax mu def loolu lan moo tax mu def loolu. waaw ah, ni nag yéen journaliste yi war ngeen ko laaj loolu lan moo ko lan moo tax mu def lu mel noonu waxtaan tax na Elon daal moom la wax nee na question bi daal nee na moom nee na kañ la ñuy nangu maa waa Ukraine kañ la nangu ba maanaam kañ la nangu li nga xamante ni moom mooy réalité maanaam daal waa Ukraine dañ war a xam ni waa Russie ñoo leen militairement ñoo leen man kon lépp loo xamante ni euh, war nañ ko mën a signé comme accord dañ si war a d'accord dañ si war a ànd ak ñoom nee daal kañ leen di accepté pour euh, pour signer benn accord de paix ñoom waa Ukraine kañ la ñuy nangu pour euh, signer ay accord de paix ndaxte neen depuis neen depuis boobu ba léegi ay milliers personnes ñoo ngi ciy dee ñoo ngi dee si si si dara ñoo ngi dee si loo xamante ni daal amul benn sens daal moom la Elon Musk wax nee na nee na loolu daal moom la Elon Musk wax nee na daal nee na position Ukraine daal chaque instant mi gën a faible. doole Ukraine chaque instant mi ngi gën a faible moom la Elon Musk wax nee na waa Ukraine ñoom kañ la ñuy yeewu kañ la ñuy yeewu ba nangu ni ba nangu accord de paix bi nga xamante ni Russie proposé na leen ko. ba tey bokk na si information yi neen waa waa Russie Iran daf leen war a joxaat neen waa Russie Iran daf leen war a joxaat plus de quatre cent missiles balistiques solaires moom la rapport bi génnee. ba tax na nee nu euh, bokk na si quatre cent yooyu am na plus de cent dix fata yoo xamante ni dañ si bokk ak euh, bare na daal nekkul nekkul nekkul benn euh, kii nekkul nekkul benn façon missile si kese la quoi façon yu bëri la waaw nee na nag missile fata yi ñoom nee na dina dina dinañ peese dinañ peese six cent cinquante kilogrammes nee na missile yooyu moom lay peese six cent cinquante kilogrammes nee na aussi tamit euh, dina daw euh, trois trois cent kilomètres nee na bi nee na deuxième missile ñoom dina dem dina dina dina deuxième beneen missile bi dana dana peese cinq cent quatre vingt euh, kilogrammes di daw sept cent sept cent kilomètres. moom la rapport bi euh, wax missile yi nga xamante ni waa Iran war nañ ko jox waa Russie neen commandement bu chef de l'air bu Ukraine ñoom neen neen duñu neen amul benn information bu officielle ñaa amul benn information bu officielle boo xamante ni euh, euh, maanaam daal dafa dëggal ni waa Iran jox na missile yooyu waa Russie neen daal chef de armée de l'air bu Ukraine bi daal moom loolu déclaré nee na amu si leen leer lu leer daal information boobu ñuy dégg moom opposant Russie bi di euh, Nadjin na na na moom xama Boris euh, Nadejini Nadjidin moom dafa xam nga moom dafa posé woon candidat mais dañ ko rejeté woon posé woon candidat mais dañ ko rejeté woon léegi mu porté woon plainte kii euh, euh, euh, commission bi yor wàll électoral bu central bu Russie da ah, doon porte plainte woon mais nee na cour suprême daf la daf ko dafa rejeté plainte bi nga xamante ni moom moom la defoon ni moom daal du mën a bokk si si si présidentielle yi yi war a am moom la cour suprême bi wax mais correspondant bu RIA Novosti moom moo xamle lu mel noonu. ne defoon na plainte waaye cour suprême bi def ko rejeté waat moom opposant wu Russie bi. ba tey bokk na si information yi nanu Joe Biden moom mi ngi commencé am problème mémoire ndaxte Joe Biden bu wax bu <laughs> waree wax Joe Biden nee dafa commencé perte dafa am ko dafa commencé am perte mémoire ndaxte bu euh, dafay jaawale dafa doon jaawale président wu maanaam bu waree wax président Mexique. président Égypte lay wax waaw moom Joe Biden même premier ministre bu Israël bi sax nee dafa jaawle turam maanaam da leen di jaawale quoi bu waree wax tur kii tudd keneen jo Joe Biden nag boo gisee xam ni vraiment mag la quoi vraiment mag la te gars yi ñoom euh, lii ngay gis ni video la video la boo xamante dama ko capté rek dama ko capté mais dafa doon làkk euh, dafa doon kii anglais maanaam pour daal wane ni lii ñu koy waxal ni du ay tuuma mais lu mu wax lu ñëpp di dégg lay doon quoi waaw moom daal Joe Biden mi ngi noonu rek waaw yaakaar naa ni comme tànk yi moo commencé woon di bañ muy dox di daanu léegi daal bopp bi mi ngi mi ngi wane boppam. ba tey bokk na si information nee nañu dafa am benn euh, euh, dafa am benn délégation chef d'état africain benn délégation chef d'état africain boo xamante ni maanaam sept pays la yoo xamante ni war nañ dem war nañ dem euh, war nañ dem Ukraine war nañ dem Ukraine pour pour waxtaan pour waxtaan quoi c'est pays africain nag ñii la. muy Égypte Gambie euh, Comores Sénégal République démocratique Congo ak Ouganda ak Afrique du Sud nee na actu nee na mooy deuxième fois bi ñu dem fa pour waxtaan ak euh, Ukraine ak Russie pour proposer leen pousser leen aussi tamit président Ukraine bii di euh, Vladimir Zelensky pour mu entamer benn négociation ak Moscou pour mu créer maanaam daal pour mu nangu waxtaan ak waa Russie quoi. pour jàmma moom la journal bii di agent bu taas bii di wax mais ambassadeur bu sud africain bii bu Moscou bi nekk Moscou moom moo xam moo xamle lu mel noon ba tey bokk na ci information yi euh, moom Gabriel Attal premier bu ministre bu France dafa dafa daje woon ak baykat yi nee na solidarité ak Ukraine nag tekkiwul nu maanaam dañuy euh, maanaam dañuy suuxal baykatu français yi moom la déclaré première ministre bu France bi di Gabriel Attal mooy bi conférence de presse bi nga xamante ni doon na ko am euh, si euh, secteur agri agricole bu France nee na gouvernement bu France neen dañu jël ay dinañu jël ay mesures pour protéger baykat yu France yi moom la Gabriel Attal wax euh, ne contre importation euh, maanaam importation yi nga xamante ñoo jógee si bitim réew quoi surtout côté côté maanaam suukar ak euh, yàpp bi bi nga xamante yàpp bi war a jóge état biir kii maanaam si bitim réew <coughs> aussi tamit. ak suukaru Ukraine bi moom daal moom la kiiwee neen daal dangeen si def ay mécanisme yoo xamante nii daal pour proté pour protéger euh, pour protéger kii quoi sare euh, baykat yi neen surtout céréales yi nga xamante ni war na jóge bitim réew di dugg si biir France ba moom ba léegi premier ministre bu France ano na aussi tamit euh, maanaam pour waa France yaakaar maanaam li nga xamante ni ñoom moom la ñu béy te bañ yaakaar euh, euh, yeneen réew yi loolu tamit jot na nga fa xamle mais nag lii nag forcément que mu waxee lu mel nii ndaxte ñoom li ñuy wax si kaw maanaam li ñuy li muy wax nii daal dafay defal béykatu français yi moom Gabriel Attal ku nekk xam na ni. Euh, céréales Ukraine yi depuis que Russie tëjee mer Noire bi ba léegi biir euh, Tchèque lay jaar wala Pologne wala yeneen dëkk yooyu daal te dëkk yooyu yëpp seen baykat yi ñooy commencé di yëngu-yëngal waaw Gabriel Attal moom neen nag solidarité ànd ak Ukraine daal du tax ñu bàyyi seen i baykat yi ñuy dee ndaxte. ñoom li nu ñoom ñoom français li nu bëgg mooy que ñu dem ba baykat yi nekk biir France di bay loo xamante ni du ñu jéggaani feneen mais seen biir réew la ñuy yam la Gabriel Attal wax ba xam li mu wax na gëm na ko waaye naa li mu wax bu fekkoon ne gëm na ko kon baykatu seen baykat yi duñ dem bay manifester di. dem bay baare di dem ba biir capital bi eh, biiri Paris ah, ba tey bokk na si information yi neenu Burkina Faso ak eh, waa Ghana eh, danu bëgg defar benn dañu bëgg defar benn chemin de fer boo xamante day jóge day jóge Burkina dem ba biir gana Je xamle l'ambassadeur Russie Burkina Faso Alexei euh, Saltikov déclaré que euh, euh, télévision de RT en français mom neen le ministre dalal transport transport ak infrastructure du Burkina Faso le 20 février neen daal ñoom actuellement nii loolu mooy seen bëgg-bëgg ñoom waa Burkina ak waa gana dafa benn raay boo xamante ni daal dina jógee Burkina ba ba gana waaw jabe ñaa maa ngi lay bégge ba tey si information yi neen nu euh, Burkina dafa suspendre euh, dafa suspendre produit yi nga xamante maanaam produit produit or bi nga xamante ñoo ngi koy def ñoo ngi koy def euh, biir euh, Burkina neen dan koy suspendre ba dafa am ay mécanisme yoo xamante ni dañ ko war a def koi moom la ministère bi yor wàllu énergie ak bu yor wàllu mine ak bu yor wàllu carrière moom la communiqué moom la wax ah, nee na Burkina nag Burkina Faso nag moom mooy mooy dëkk bi ma mooy Afrique de l'Ouest mooy dëkk bi si ëpp or mooy dëkk bi fi ëpp or si biir Afrique de l'Ouest ndaxte am na 17 mines indi industrielle neen cinq yi actuellement ni dañ tëj ndaxte li ko waral mooy que ni zone bi nu nekke ay touristes ñoom ñoo fa ñoo ñoo fa nekk di def violence ñoom jihadistes ñoom ñoo fa nekk moo tax neen cinq yooyu yooyu cinq yooyu tëj quoi mais daal Burkina moom mooy dëkk bi ëpp mine d'or si Afrique am na 17. ay di dem Europe ñii di dem ay Suisse ak ay ay ay man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay Iran Irak teere Tanzanie